alors toute dernière question Ismaïla euh, dafa am ñuy ñaxtu euh, sur les positions de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal moi j'ai regardé euh, euh, ça ça ça ça ça euh, les autorités sénégalaises c'est une incursion ou c'est le c'est le c'est, c'est le jeu normal des acteurs de la communauté internationale. xam everybody want me Sénégal man partenaire su ma doon waxtaan ak ñoom dama leen di wax ne surtout laa doon introduire quoi considéré wu ñu li di def comme de l'immixtion ou de l'ingérence. con yow considéré woo ko. non man laa leen di wax non je suis un diplomate la justice je suis que c'est de l'attention que pour partenaire privilégié da ngeen jàpp suñu réew da ngeen ñu bëgg da ngeen ñu fonk da ngeen jàpp ne démocratie la ba nga xamante lu fi xew rek. da ngeen di bëgg a xam lu xew loolu lañ koy jàppee waaye attention ñun lu xew seen réew duñ ci wax pourquoi ngeen ñëw di wax lu leen neex nii deux balaa ngeen di wax informé wu leen ba pare soo defee communiqué ne loi bi nañ ko wotee baaxul parce que député dañ leen jàpp génne leen ci biti wala police moo ñëw génne leen mais bien sûr su ñu defee dix heures de débat douze heures de débat douze heures de débat au moment du vote nit ñi ñëw taxaw ne doon fi voté lu ñu def mais dañ leen di génne voté loolu da ngeen di informé wu. ma ne waa CEDEAO soo leen waxee député dañu voté benn résolution pour yokk mandat au président mais da ngeen juum du résolution loi constitutionnelle la da di laajte ba pare balaa ngeen di wax toj-toj laajte leen am leen information bu baax ensuite bu leen ingéré wu di jox gouvernement ay injonction parce que ñun nous sommes un pays souverain France bi gilets jaunes yi amee ñun dañu leen wax dara. bi ñu attaqué capital bi gars yi yéeg foofu dem kii ci dugg ci bureau Nancy Pelosi yi foofu yàq fay affaire ñëw ne dañuy bañ élection yi ñun wax nañ leen dara il faut respecter nos états comme nous on respecte vos états mais lu fekk ngeen ñuy wax en vous intéressant à, à nos processus politiques en vous intéressant à nos élections ça ne nous mais si vous êtes respectueux de notre souveraineté mais ça ne nous dérange pas que vous donnez votre point de vue que vous encouragez que vous exhortez les gens au dialogue on n'a pas de problème mais dans le respect de la souveraineté et dans le dans aussi la nécessité d'avoir la bonne information parce que bu leen diffuser aussi information yoo xam ne baaxul après aussi il y va de l'image de notre pays et globalement ay mun en dehors de la presse étrangère qui était trop massivement présente pour juste un décalage d'élection au Sénégal les, les organismes multilatéraux et les pays ont été très respectueux. L'Union européenne, ils ont été très respectueux. Très respectueux. La France, très respectueux. Moi, dès que j'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères de la France, ils ont compris. À la limite, ils sont allés mollo. L'Union africaine, on n'a même pas évoqué le problème. C'est Moussa Faki juste qui a dit dans son discours que nous saluons la décision du président Macky Sall de respecter la décision du Conseil constitutionnel exhortant les acteurs sénégalais au dialogue et à organiser les élections dans les meilleurs délais point CEDEAO on l'avait mis dans l'ordre du jour j'ai argumenté on l'a enlevé de l'ordre du jour vous avez même vu la CEDEAO nous a même soutenu pour dire que les partenaires occidentaux ne doivent pas s'ingérer dans nos processus politiques donc globalement bon ça n'a a pas la peine de le convaincre. C'est pas la voilà. Il a fait un communiqué pour rappeler que oui, il faut laisser les gens manifester, etc. Par contre, j'ai parlé avec lui. woo nga ko. oui. loo ko wax. non mais on a parlé on a parlé du processus politique au Sénégal on a donné la bonne information le l'a reçu il lui a donné la bonne information ils ont compris et ils ont compris que ce pays est une grande démocratie. mais les Japonais ils se donnent ils se de liberté. oui tant que ils sont dans les considérations générales dans les rappels au dialogue dans la nécessité oui d'éviter la violence on n'a pas de problème. S'ils veulent nous dicter les décisions qu'on doit prendre du point de vue de notre processus politique, ça, on ne peut pas l'accepter. Merci beaucoup. Monsieur le...